alors damay gis souvent vous tirez euh, ci li nga xamante ni moo di le régime du président Macky Sall mhm. nga leen di reprocher exactement. Macky Sall euh, tiré moom man aw aw benn problème ak Macky ah, Sall au contraire waaw opposant la ah, moom moom dama koy dama koy revendiquer mhm. euh, du dara lu dul mhm. Macky Sall tey pour mu yegsi fu mu yegsi ñun ak ñeneen ak ñu mu àndaloon dañoo xeex pour mu yegsi fu mu yegsi euh, Macky Sall incarné woon benn espoir ou renouveau mais aussi mu am lu mu diggee woon tey souvent dama koy wax mën a jàpp ni alternance lan la diggee woon ci fàttali lu mu diggee woon benn moom mooy bu ci njëkk gis ngeen contexte bi fi amoon maanaam boobu ñu ngi doon soupçonné ne Ablaye wadd dafa bëgg a jox nguur gi e, famille maanaam doomam d'une mu jàppoon ni moom ci discours lu mu diggee woon moom mooy dana fexe. Mm-hmm. ba mbirum état yem ci état mbirum famille yem ci famille. Mm-hmm. léegi lu des dama lay bàyyi ku ci nekk sa xel. man maa koy wax ba mu ñëwee loolu amul ñu <laughs> loolu amut ñu jóge ci Macky sàll ba mu jëlee pouvoir bi. fekk état de droit ak démocratie nërmeelu ci réew mi mhm. tumuranke mhm. tey la gaar euh, tey la waalo gën a aay loolu amul sikki sàkk mhm. damay faral di wax ni Macky Sall 2012 Sénégalais yi benn fait d'arme lañ ko la ñuy fàttaliku bu ñu waxee Macky Sall mooy lan mu yor mer gàddum ne day dem place du souvenir pour fanaani fa mais tey Ablaye Tine sax mënatul jël normalement <laughs> maire gàddum ne day fanaan yi place du souvenir bu demee Colobane ñu ko donc aussi mu nekk kenn ki nga xam ne laataam moo euh, daa am ay bakkan yu bëri yi nga xam ne daf fi muy onze morts ak benn nombre indéterminé de blessés parce mhm. que collectif bi nekkoon naa suma seen avocat man Assane jomma Ndiaye ngeen gis ñu mhm. ñuy xeex ci dossier wu Mamadou jóob bi mhm. ba famille bi am ndàmpaay ba policier yi nga xam ne ñoo doon dawal dragon yi ñu daan leen mhm. daanaat leen mhm. ba ñu jógee ci loolu yëpp Macky Sall jour ba mu jëlee pouvoir bi maanaam ba mu gagné résultat élection première rencontre ak presse bi fu mu ko defee ci benn hôtel de la place ci corniche bi yéen koy fàttaliku euh, lu mu njëkk a wax moom mooy je dédie ma victoire aux victimes de la répression policière tey à l'heure du bilan mhm. jàppal ni Macky Sall mooy le président qui a le plus lourd passif des droits de l'homme fii ci Sénégal plus de quarante morts amul benn président bi nga xam ne ci nguuram bakkan yu toy noonu rot na fi tey boo jëlee Macky Sall le nombre de personnes yi nekk ndungu siin te dara yóbbawu leen fa lu dul ñenn ñi ñàkk fayda yi nga xam ne mënoon nañ leen juger le même jour wala le lendemain comme Diomaye fay mi nga xam ne dafa def benn poste kese wax dara ñu ne ko rab tëj ci kaso bi fàtte ko fa donc yooyu tey moo tax ma jàpp ni Macky Sall non seulement pour tontu sa laaj c'est une promesse trahie mais c'est un espoir déçu